kër Dieng kay waa kër Dieng kay kër Diegay waa kër Diegay anañ ah waa kër Diegay waaw. Продолжение следует... dañ leen yëngu. ñu leen xaar ñëpp ak si ànd délégation lépp lu xam tey. beneen femme jërëjëf. remerciement à l'endroit de tous les invités ici présents en ce jour de la communauté. wala gàmm gu ma mas a gàmm bu a ci daal a moom laa fekk ne déwén doo ko daal xalaat parce que bu ma woowee ba ñëw mu wóor maam yi Sénégal lañ ko kàddu yi nga yëkkati léegi ci biir na xel ndax da kilifa di mag bu baax boo àndee sama bàjjen Adja Arab Thiam ak ñi nga àndal su ma yëkkatee ci yow laay njëkk a nuyu El Hadj sa cofeem ci Abdoul Aziz xam nga Abdoul Ahad Cissé dañu wax ni dañu la nuyu wàcce la sa wàccuwaay wax. il faut nag ci kanamu buse bi bu ñu mënee dégager pour bañ a gérer li nga xam ni mooy prestation saveur jàmbur doon na baax am ci vue am ci mise en exergue pour que tous les invités soient heureux ci bis bi nga xam ni mooy ala azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwa alxaraami wadu

Euh, tey bésub gàmmu Aziz dajale jullit yi mbokku taalibe yëpp euh, daal leen indi ci kër baay ak ci këram gi nga xamante ni euh, sant Seydina Mohamed donc fi tax a jóg. waaw sant yàlla bu baax a baax. Mhm. ginnaaw ba ñu sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. di sant suñu yaakaar Seexul Xadim comme ni ñu koy defee chaque année rek. gàmmu gi moom ku ne xam na ne guddi yonent bi la ñëpp ko bokk. Mhm. waaye Seydi Hadj Malick da ko woote woote bu rëy. Abdoul Aziz di kenn ci kër Seydi Hadji Malick di di njabootu Seydi Hadji Malick ci deret waaye di njabootu ruux mooy mu yaakaar fi àdduna ak alaxira moo tax mu dajale ñu fi dajale fi ay xaritam ay andi jàmmam di gàmmo di teral nit ñi ngir jëmmi yonente bi sallallahu alayhi yaakaar naa ne loolu rek mooy sababu gàmmo te fii ku fi ñëw di nga xam ne Abdou Aziz euh, bi sallallahu alayhi wasallam jaral na ko ndax euh, lépp lu ñuy defal teraanga ju ñuy def ci àdduna rek defal na ko yonente bi tey te yaakaar naa at yëpp noonu la ko defee. kon ñu ngi ñaan yàlla na yàlla na yàgg yàlla na sax barke yonent bi. yàlla na ci dëppoo tam ak ngërëmal Seydi Hadji Malick mi woote woon bés bi. dëppoo ci tam ak ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla def ko xéewal ak yiw. sotti ko ci réew mi yëpp. sotti ko ci jullit ñi sotti ko ci sénégalais yi ko dëkkee. Aziz dégg dégg mag ñi lool ba bu Touba jotee mu def ci ay terangaam bu gàmmu jotee mu def ci ay terangaam lew nañ ne seen fépp foo xamante ni rek kilifa diine nga fa Aziz terangaam mi nga fay dem. waa xam nga loolu dafa dégg rek peut-être dafa dégg rek euh, diine la dégg. parce que Serigne Touba dafa yor benn làcc ci diine. di ko bayal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Seydi Hadji yor benn làcc ci diine. Baye Niass yor benn làcc ci diine. kon ñoom ñëpp dañuy bayal diine. képp kuy ab julit nag amoo frontière ci diine. loolu la xam bu Touba jotee man mi bokk naa ci ñu muy jaar ci man. Euh, def fa xéewal boo xam tey relation cofeel non Balla Gaye da di mbër mu baax nekk mbër mu yaru te fàttewut dem. waaw parce que yaakaar naa Balla Gaye grand combat maa ko jëkk a jox fii nag. école de Balla Gaye jox leen 15 blouson. Baye Balla taxaw ne vraiment écrit bi yow rek yaa am confiance pour jox nu grand combat man naa ne école de lutte Balla Gaye man maa fa njëkk a joxe grand combat muy Balla Gaye bala nga it booba ba léegi fàttewut loolu respect la am ci man te nëbbuma ko sama ay mber tafaatin mi may mi may nekkat ànd ak moom de buy wax del ma naa sa waa ji sa xarit bi parce que man euh, mber yorut sama dépasse mber mënut ma mësut ma jox dara kon mber mënut ma canaliser nel ma doo ànd ak kii wala doo ànd ak kale kon kon mais lamb la lamb la xaalis la loolu loolu loolu loolu loolu loolu du dara loolu du dara lamb ji day jeex làmb ji day jeex mber yi màggat àndaat nekk ay xarit dañuy liggéey rek man jon maa moom sama bopp ku ne ci ci làmb dama lay jàppale kon man benn mber dul ma canaliser nel ma kii mooy nekk sa xarit wala kee mooy nekk sama xarit bu fekkee ni say loxo daa set nag amoo caaxaan kenn mënu la jënd mën nga ànd ak ku ne kii da booy bu baax bu gore da booy bu baax booy bu gore booy bu am fula looloo tax tey nekk euh, nitu dëkk parce que boo xoolee ay communication am léeg nit ñi di dal ci kawam mooy day def li mu santi rek lay wax te loolu mooy nit. yàlla na si jàmm waaw loolu moom dañu jox ko jërëjëf jërëjëf <laughs>